coowal Adji Ousmane Sonko saa ñu demee ba yaakaar ne na rek mu amaat ay rebondissement week-end bi secoué na loolu toile bi et pour la deuxième fois Adji Sarr yëkkati ay kàddoom. ci fan yi ñu journaliste bi di Babacar Touré dafa génnee ab scoop di xam ne ni kii di Adji Sarr fuge na kër ga mu nekkoon dem làqatu ci benn kër activiste te sax décidé na révéler les lu aju ci supposé complot boobu. kër googu nga xam ne moom lañ ko dënkaane. mu nekk ak papam jooju di avocat bi te du ma tudd turam xamal na leen nii moom mënut nekk ci kër googu déconné déconné yu metti daal di jël ay gaddu ay bagage am daw génn kër gi. parce que un moo xam lan la fu dund ci kër gi mais deuxièmement nee na lu ñu ko dégg defuñu ko. xale bu jigéen boo xam ne activiste la ma bamtuwaat ko ku bëri wax ci télé yi ci cadre Adji Sarr kër kooku lañ ko fat bu ngeen bëggee ma jox leen tettal. dinaa leen wax ni ca Mermoz lañ ko fat xanaa yooyu allégation la Adji Sarr doon xaar pour wax ndax daf ko battre en brèche ci live bi Françoise Hélène doon amal ci la yëkkati ay kàddoom nee na taskatu xibaar bi la mu wax dara amu ci te sax jàpp na ni Ousmane Sonko moo ne ci ginnaawam. pour être France bêtement ngay wax nit di fen ba pare jégal maa ngi jégalu ci kàddu gi. Mhm. ngay wax ngay ngay fenal nit xam nga loolu dafa bon ngay fenal nit ba pare yow nga xam ne li ngay wax ni du dëgg nga koy imposer nit ñi.

jokor major kër nag jokkor maajoor jokkal gi nag dafa saf sap sen digeunte ndax ki di Babacar Touré dafa delu ci di deugal lam waxon te neena ci ay source yu clair la ko tek te kenn yabaluko dañ mo tuddol ay nit dañ mo jox ay tour mm. ale bu jigen bi nga xamne mom moy activiste bi mo tuddu ne mom moy ad héberger adissa bi adira bi sa mm-hmm. wo wo mako waxna ak ay mbokam ñu tuddal ma ñu tuddal ma ay kilifa kilifa yu respectable ci réew mi ma wax ak ñom d'accord kenn ku ne mu wax ma rôle bi mu joué. ci di mujj mooy Ousmane Sonko te muy suma nawle dañu dem négo jéem koo jéem a négocier ak moom. su mhm. mu xool naka lay def parce que Adji Sarr dafa décidé wax dëgg ndax moom mu arrêté bu mu ko topp. su ma inventé loo xam ne dama ci mêlé Ousmane Sonko cité turam à ce point là. Mhm. ba ne contacté nañ ko pour ñu négocier. kon mom il a toute la latitude pour mu wedd ni li ma wax du deug mom journaliste d'investigation bi liko soxal moy sooru Adji li muy ragal nak suñu suko diko ci ay kàddoom mooy ñu sàkkal xale bi pexé le sort d'une marionnette c'est de disparaître à la fin d'un spectacle. parce que Adji Rabi Sarr a ngi nii joué loo nañ ko rôle bo xamné moko dépasser ko dépassé li ma ragal moy mu xëy jaar fa leneen fekk. bu fekkee ne nañu juge dañu ragal ndax juge yi ku ci laal di nga dé secondement ki nga xamné moy xalé bi di Adji Raby pour xamal ni ñiko jouer le rôle bobu dama ragal ñu ñu ñu ñu ñu tracer ko lu ñu wax le destin d'une marionnette motax may alerter. pile affaire nak dafa melni moy bu ñepp doon xaar. ndax ini na cacophonie bu rëy ci bi activiste yi ñenn ñi sax japp ni moom Babacar Touré dafa nek di subir ben manipulation. nga ñew ay nit la la la ndëgg serex nga daanu ci biir ndëgg ndëgg serex bi. Babacar ci boppam dañ ko sëlëm ba mu reer te du ko nangu nag xam nga dafa dafa jafe tey nit daanu nangu ne daanu na dafa jafe surtout sénégalais. loolu ngeen bëgg ay nit yu leen di fen ngeen di koy consommer ngeen xam ne lii sax ay fen la mais yéen da ngeen di ne gëmm leen comme ay fen la mais arrangé nañu dañuy gëmm. ñoo bokk camp boo waxee lii du ñu arrangé bu ko wax eh, xamoo koy Kaliphone. dëgg la am déet nag am na ci ñu bari ñoo xamante ni li ñu bëgg lenn rek la. mooy ñu tiire mbir mi au clair ndax sénégalais yu bari dañu cee ñàkk seen bakkan. bu leen nu bu leen nu fontoo gis nga mbokku aji saa yi bu fekkee nag yéen am ngeen tuuti respect ci sénégalais bu leen dese xool leen nag noo leen canaliser bagage yi. yéen ak seen doom la xawma seen sët ngeen xool nu ngeen canaliser bagage yi bu fekkee da ngeen xool nu ngeen corriger le tir waxtaan ci yoolu yéen la concerné kenn neexalu loolu duñ leen si neexal dañoo bëgg nag bii ngeen bàyyi nag di jël paaka bi di ko remuer encore encore indi fii ay waxu yu ñàkk fayda fexe ba ay nit dee si il va falloir que un moment donné nag ngeen jël seen ay responsabilité ak un peu de respect ngeen amal ko sénégalais yi. depuis mois de février coow li mi ngi traîner té ba tey gisuñu procès waaye tam amul lenn lu sérieux lu ñu teg ci loxo sénégalais yi. juge d'instruction bu yor dossier bi sax gisaguñu ko ginnaw déssé wu Samba Sall ba légui opinion publique bi dem nañu ba japp ni mbir mi mystique da cee rax wala sax dafa dem ba melni ni patate chaude ci seeni loxo. waye lolu yépp sax amul ndëri li intéressé sénégalais yi dëgg-dëgg mooy ñu tranché ñu xam fu dëgg fété ndax bu ñu fàtte ni cette histoire nous a coûté des vies té su dee dëgg la aji sax soxla na justice bu dé complot yooyu tamit moom aji Sarr soxla nañu garantir sécurité wam xaayaan nag ku dégg séeréer lii lañu leen indiloon ci xibaaru bés bi fi ci Totem Actu way leen rekk duñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu waaye tam ci suñu site internet www.totemactu.com